may télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér gu yaram santé animal dina saytu sama laanu mi dunde fii ci Ladoum TV TV jox la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar jaar danga ko bu la dara raw salaamaaleykum mbokk yi jëm ji ma taxawal beesul ci yéen kanamam gii yaakaar naa ne xàmmee ngeen ko ci seen émission fi ma jaar kii mooy Pape Mboup borom bergerie Seydi Djamil defoon na fi émission ak sama confrère Soul ñu defoon waxtaan bu am solo ñoom ñaar bi mu ñëwee mu wax jaar-jaaru élevage comme bu ñu ñëwaatee ci këram xam ngeen comme ni ñu koy faral di defee évaluation lay doon xool li ñu fi bàyyi woon ca jamono la ci gannaaw fan la ci toll sujet yi ñu fi bàyyi woon ñu nekkoon ay mbote wala ñu nekkoon ay tëng wala ñu nekkoon ay jeune mâle ci jamono ji fan la ñu toll Pape Mboup borom bergerie Seydi Djamil su ma ko waxee seen xel dem ci seen euh, maal nga xamante ni maalu Sénégal la woon Sadio Mané xam ngeen ko bu baax info de nekk maal boo xamante ni turam siiw na lool moom mooy borom Pape ñu ngi lay nuyu di salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu jibi maa ngi lay nuyu di nuyu euh, su ma la nuyoo rek euh, nuyu naa ñi nga àndal ñëpp. Euh, di leen ziar di am kontaan ak mbégte. vraiment di di jàkkaarloo waat ak yéen fii parce que tamit comme ni nga ko waxee rek jaaroon nañu fii ah. jamono yi la ci ginnaaw vraiment ñu am fuñ tolloon. Euh, comme li nga wax rek présentation bi daanaka du ko jar. Mm-hmm. léegi nag euh, kon dañuy évaluer rek ah. Mm-hmm. waaw di di nuyu ñëpp rek euh, di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen. amiin amiin yàlla ñu yàlla boole jàmm jooju noonu Pape Mboup la gis ngeen ko. mu nekk koo xamante ni jaaroon nañ fii waxtaan ak moom waxtaan bu am solo woo xamante ni defe naa monde de l' élevage yëpp jariñ nañ jariñuy nañ ci ndax xam ngeen ni jeune la nekk ci élevage judd ci yaru ci màgg ci papaam nekk ci nàmpatal leen ci bu baax a baax ba tey tey mu ci taxaw taxawaay bu am solo ci gox bi mu nekk euh, pambub gars yi ñëwoon nañ fii suul moo defoon émission bi ak yow mu nekkoon émission bu neex bu am solo jàngat yi ci feeñoon bari woon lool euh, ñu bàyyi woon fi ay sujet nag sujet la ñu seet si tey pour xool naka la ñu évoluer aywa kon daal dañuy dañuy dugg rek dem ci eh, ci présentation mal bi defe naa info 2 ñun ñëpp xam nañ ko ñëwoon nañ fi nga présenté ñu ko comme euh, évaluation la ñu wax euh, bu ñu fi ñëwee moom du ñu ñor trop mais li mu fi def ci diggante bi jeune mal bi moo ko jur kañ la juddu ak nan la tudd mal bi mooy buur mhm. Euh, nekk nekk toll ci huit mois. Mhm. Euh, di doomu di doomu Info waaw di fàttali rek ne Info moo moo moo nekkoon meilleur jeune ci fois édition. 2018 ah, 2019. waaw waaw moom moo nekkoon moom moo nekkoon meilleur jeune mâle. ok waaw léegi nag kii doomam la quoi mi ngi toll ci huit mois. doomam ak ban femelle. Euh, teranga femelle bu ñuy wax teranga quoi. muy femelle bu njool bu rafet. <laughs> macha waaw waaw waaw moom moo ko kii mu tudd buur quoi mooy buur buur waaw waaw. ok ok kon juste pour wane. la nga doon wax rek. waaw yow génétique bi ngay liggéey. lu mm. am solo parce que xam nga ni. Mm-hmm. bu defee jeune mâle bii nii. Mm-hmm. vraiment à l'âge de huit mois mu mel nii. Mm-hmm. mel na ni boo dee xool. est-ce que papa ji amoon na tolloon na nii moom bi muy am huit mois. waaw waaw waaw parce que nag kii. xam nga tamit euh, xar yi chaque jour da ngay dolli moo tax. waaw da ngay te xam nga rek euh, euh, croissance yi. Mhm. loo gën di liggéey rek. da mhm. war a da nga war a ñëw mu gën a mu gën a pour man mu ci judd rek war gën a progresser quoi. laa gëm quoi. effectivement voilà waaw mu nekk lu am solo. Mhm. kon buur moo nekk nii moom lañ leen di présenter. ki nga xamante ne mooy info 2 moom moo ko jur. fekkoon nañ ko fi aywa mbokk yi buur mi ngi noonu nekk jeune mâle bu rafet macha allah. aywa dañuy continuer suñu suñu visite évaluer xool li nga xamante ne moom la fi Pape liggéey ci diggante bi mu nekk lu am solo aywa Pape ak kan nga ñuy présenté waat ñu dugg ci box bu njëkk mu mel ni fekk nañ fi ay euh, tëng wala ay femelles yoo xamante ne bi ñu fiy ñëw ay xale lañu woon hmm. wala judooguñu woon ay tëng lañu woon ay tëng lañu woon dañuy door a juddu boobu ok d' accord hmm, hmm, kan ak kan la mën nga ñu leen a présenté waaw bii borom collier bu jaune bi borom collier bu jaune bi waaw kii mooy modèle kan waaw mooy kii mooy modèle euh, nekk doomu Zeyna doomu Zeyna ok euh, yaayam papam papam hélas moo ko jur ok waaw ah, El Hadj doomu Oguye la. Oguye doomu Saalum moom bi ñu fi ñëw mbote la woon. naa gars bu ñu visionné euh, vidéo bu njëkk bi. dinañ gis ni ñoom ñoom ñoo fi nekk. mu nekk croissance bu baax bu gaaw macha parce que gars yi fi noonu ah. waaw mais xam nga tamit euh, xar yi. Mhm. Euh, boo xamee li nga manqué leen. Mhm. xam li ngay wuti. Mhm. li nga bëgg rek incha allah di ko am quoi. ok xam nga affaire yëpp mi ngi dépendre que ñoom Zeyna. xar yooyu fekk. xar yooyu ñuy fekk Mm-hmm. dañoo bul fàtte ñun dañu liggéey si Batlin bi comme ni ma waxee liggéey ci liggéey ci euh, pas Cheikh Cheikh Diop bu maire Fatou Mbiya mm-hmm. mais Cheikh Diop bu Pàcceen boobu mm-hmm. doomu Mouride la moom Cheikh Diop bu maire Fatou Mbiya ñoo bokk papa ñoo bokk papa waaw parce que boo nee Cheikh Diop rek nit ñi mën nañ yaakaar ne Cheikh Diop nga wax quoi mais dañu ah? xam nga xar yooyu yëpp dañuy dañuy dañuy répercuté waat fii ah waaw waaw léegi nag yooyu boo ko boolee ba pare dem jëli Saalum Saalum bi vraiment euh, loolu lañ si jublu woon waaw te ko xam euh, te encore une fois Elhadj doomu mère Dior la. mère Dior mère Dior. ok femelle bu rëy bu rafet. macha allah waaw macha allah boo mhm. nekkoon fële Mbour quoi. Mhm. Grand Morsène. moo kan ñoo fi nekkoon ba bi ñu fiy ñëw. mbokk yi mbokk yi. aywa mu mel ni moo yor nouveau ne bii nii. Mhm. mbote bu boobu noonu daa mel ni moom mii moo ko yor. bi ñu fiy ñëwin mbote la woon. moom mooy kan. Mm, mm, mm. kii <coughs> kii mooy <coughs> kii mooy mutu fa nag. mutu fa mutu fa lañ ko tuddee. mutu fa mooy lan. waaw xam nga bi mu juddoo dafa xaw dafa dafa tardé woon. ok dafa retard woon quoi. ok euh, mais xamoon nañ xamoon nañ. Euh, fu mu jëm xamoon nañ fi mu jëm. ok vraiment bu fekkoon bu fekkoon dañ koy euh, ñu bëri doon nañu ko demandé pour ñu jox ko. Mhm. mais comme xamoon nañ xamoon nañ deret bi moom doomu doomu yaayam. géejuwaay mi moo ko jur. ok doomu géejuwaay la waaw géejuwaay sëtu Tyson Junior la. ok waaw ma sëtu Tyson Junior la. Mhm. mais moom moo ko moom doomu Oguye bi tamit moo bi kon doomu notaire la quoi. doomu notaire la moo ko jur quoi. tey tey ji la nii quoi. ok macha kon mbokk bi ñu fi ñëwee rek dañoo nekkoon ay xale hmm. évolution bi dox ci diggante qualité bi liggéey bu rafet bi Pape liggéey moom la ñu ñëw di leen ko wanaat xam ngeen Ladoum TV saa su nekk noonu lay doxee saa bu defee leen nit émission fi ma jaar yenn saa yi dinañ fay jaar di xool liggéey bi fan la toll ak naka lañ koy doxalee aywa mu mel ni am na yeneen tëng yu fi nekk Pape bala ci gannaaw borom teg bu ñuul bii moom mooy kan kii Pape ki neex na ma de borom collier bu vert bii ki mooy kan Pape waaw kii kii moom mhm. mooy euh, mooy Kumba Kumba Fall mhm. kii waaw moo moo nekk noonu waaw moo nekk nii mm-hmm. moo nekk nii quoi waaw moom euh, doomu doomu dama yoroon fi benn doomu doomu doomu doomu miftaax waaw doomu miftaax boobu nag euh, ñoom moo ko meññ quoi waaw waaw maa ngi ci ma ci ma ci ma ci profité di wax ki ma ki ma ki ma ki ma joxoon maal bi. Mhm. muy muy muy sama papa maam mhm. Pouy. Euh, parce que maal bi jaay ma ko woon dafa ma ko aalal rek. ok macha allah waaw kon kon kon tamit loolu day jaadu nga wax ko ah. waaw léegi nag euh, moom moo jur. Euh, moo rakk teraanga. ñoom jur nii quoi waaw ñoo jur ko. waaw waaw kii fekkuñ ko fi woon de. kii moom après la fi juddu quoi. ok waaw. la. tënk bi doomu doomu Mësëy la. doomu Mësëy la waaw Mësëy Mësëy Mësëy doomu doomu doomu Ousmane la. doomu Ousmane waaw waaw mooy doomu. doomu Ousmane la ak Teranga. waaw mhm. nga wax Ousmane pour gars yi xam ko. waaw Ousmane mooy doomu euh, taawu Saalum Saalum bi. Mhm. Ah, euh, euh, taawu Saalum Saalum moom mooy jur Ousmane. waaw Ousmane Ousmane euh, taw Saloum Saloum moo ko jur moom moo jur tëng bi ak ak kii ak. Euh, moo jëloon ci foire. foire bi waaw waaw mais. kii yaayam euh, kati moo ko jur quoi benn famille bi ñuy wax kati mooy taawu famille bële géej waay. doomu géej waay. moom moo ko jur ak ak waaw voilà macha allah mu mel ni moom it vraiment tëng bu bu rafet la tëng bu rafet la ñii mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi. waaw judd suñu gannaaw waaw waaw waaw waaw waaw mais ñi des moom avant keroog bu fi ñëw fekk judd nañ quoi. voilà waaw mu nekk liggéey bu rafet comme li nga léegi mu nekk lu am solo. Mhm. mel ni saa demee rek da ngay gis ni xar yi dañuy évoluer dañuy dem. loo ci mujjee yor souvent mooy gën a rafet ndax expérience bi saa su nekk da ngay gis ni dafay yokk effectivement aywa Pape mu dañuy dugg ci beneen box bi kon léegi euh, beneen box bi Pape mu mel nii xam naa gars yi dinañ ne waa borom émission bi moom mooy jiitu damaa miin seen kër yi vraiment mu nekk loo xamante ni élevage rek moo mën lii euh, mu nekk liggéey bu rafet Pape mu mel ni am nga fi ay naissance ay doomi ñan lañ ci mbote yi laay njëkkee waaw wala nga présenté waale ma seen yaay yi en même temps après. voilà voilà boo déggee boo teraanga xam nga boo waxee rek teraanga mun na mun na yaakaar ne benn teraanga la. Mhm. mais famille bi moom moo tudd teraanga. waaw waaw moom moo jur ñaari mbote yi. Mhm. ñaari mbote yi euh, ak notaire la jural quoi. ak notaire waaw notaire la jural. Mhm. mbote yi fi nekk mën nañu yi fi nekk yëpp. notaire moo leen jur. waaw à part kii kii moom Balla Moussa moo ko jur kii mooy. doomu sëtu sa sa sa sëtu Saalum Saalum bi. bi moo jur kii. léegi Balla fi ñëw la. jeune mal la woon waaw jeune mal waaw mais ñi à part à part loolu ñi kii moo leen jur. ñi des ñëpp notaire moo leen jur waaw. ok fa bële mooy modèle quoi. modèle modèle doomu doomu doomu Zeyna la. waaw moom fi lañ ko fekkoon. waaw mais boobu boobu kii la woon quoi moom it xalal la parce que moom mi ngi door taawlu quoi. Mm-hmm. mooy taam mi ngi door mm-hmm. mooy taam quoi mboto mooy taam quoi. moom mbote mbote bi mooy taam quoi ñoom ñoom ñëpp notaire moo leen moo moo moo leen jur quoi waaw. kii kii ci gannaaw borom collier bu kii mooy kan Pape. Euh, doomu jibi la. Mhm, jibi waaw waaw mooy maal bi nga tuddee woon waaw waaw <laughs> <laughs> moom moo jur mbote yi nag mbote yi te xoolal mbote yi la taawloo de la taawloo waaw ñaari mbote yi ay seex lañ quoi ñoom ñoom la taawloo bu góor ak bu jigéen bi quoi mais ñoom tamit notaire moo leen jur quoi macha allah waaw lii ma nga madame Kanji macha allah dafa rafet waaw euh, Balla tuddee woon na ko xar bu jigéen bu rafet boo mm-hmm. xamante ne dañoo demoon fekk muy doog a juddu mm-hmm. mu juddee woon ko Yacine Safar waaw waaw xam naa dinañ fa dem xool Yacine nu me mais mbokk yi tuddee sama soxna mais bi mu tuddee sama soxna moo dàq ci moto yi moo nekk nii <laughs> waaw baram kànji yaa si nekk nii jëlal ma ko bu baax gaa yi gis ko <laughs> xam ni euh, euh, mbir daal turandoo daal borom lay nuru <laughs> mi ngi nii lu ngeen bëgg a xam ci sama soxna rek xool leen ko ci mbote bi <laughs> mais moom da di nit nag. Mhm. moom mbote la. <laughs> voilà mbote bu rafet boo xamante ne vraiment elle est elle est elle est belle. Mhm, mhm. ba mu juddoo ca jour bi laa fi ñëw. Pape na ma tuddee naa ko soxna si. nekk lu rafet vraiment macha allah. yaay ji daa mel ni da nga koo jëndoon moom fi fekkoon. waaw yaay ji waaw ñoo yaay ji fekku leen ko moom parce que parcelle la jóge quoi. parcelle euh, doomu yaayam euh, kii surtout Birame Jéeme la quoi. surtout waaw comme ñoom dañuy def doole. moo tax ma naa dem récupérer ji ko. pour bu ñëwee mu renforcer équipe bi quoi. ok waaw loolu rek laa si jublu woon. macha allah dafa mel ni fii nii matay la nañu. waaw waaw mu mel ni Pape nag dañu jàngalaat leneen. Hmm. femelle yu mag yi ñu fi fekkoon. Hmm. daanaka dañoo euh, seen i doom rek nga fi bàyyi. waaw seen i relève maanaam da nga leen waaw dugal ñeneen. waaw nga boobu noonu lan nga ñu ci mën a wax. waaw xam nga man man man loolu laa gëm parce que gëm naa ne. Euh, hmm. boo demee jëndi maal. Euh, maal bi loo ko jëndee lu mu seer seer seer loolu amul problème mais na la defal ay production nga téye nga téye production yi man loolu laa gëm man noonu laay hmm. liggéey xa maal bu ma jënd damay téye say production hmm. parce que man euh, du ma jënd maal pour comme maal bi moo xew ak non man du ma jënd noonu maal hmm. su may recruter maal damay xool euh, femelle li fi nekk liñ manqué le ma dem recruter ji maal bu bu mel noonu pour mu ñëw complété léegi nag bu bu juree ba pare su ma jaayatee mbote yi mais fi ma nekkoon laa nekk ba léegi jóge ma fa parce que ñu bëri da ngay dégg ñu naan la maal bi da dugal pour mu changer sa gétt mhm. mais bu fekkee maal bi dafay changer sa gétt mhm. changer gétt bi nekkul ni maal bi day ñëw di changer femelle de mhm. mais day def ak femelle yi production nga bàyyi fi production bi loolu mooy changer sa gétt mais bu fekkee ne da ngaa jënd maal boo xam si àdduna yëpp ko xam mhm. te lu jur nga jaare ko mhm. changé wo sa gétt mhm. ba léegi fi nga taxawoon nga taxaw ba léegi rek géttu jàmbur yi lay changé merci fa nga taxawoon yow yow changé woo ba léegi mais nag boo jëndee boo jëndee maal mu defal la donte benn tour la nga téye lépp ah ba pare parce que femelle yooyu muy muy muy muy muy muy jural bul fàtte ne ay champion lañ. Mm-hmm. keneen mën na ko jël dem teg ko ci beneen maal. Mm-hmm. mu génnewaat leneen lu lu dàq loolu. waaw mais yow man daal man sama choix. Mm-hmm. man man man sama calcul la quoi man dama jàpp ne yi ma jëndee maal. Euh, bu fi juree ay doom. du ñàkk mu jaay si nag. parce que du mën a ñàkk parce que yi li may wax ne xar yi lekk ñu suuf. mais nag euh, foog ma téye ci benn benn benn base boo xam si boo ñëwee di nga xam ne. parce que bépp maal boo xam si jaar na fi ci gerte yi boo ñëwee fekk doomu baa satam incha allah waaw nekk lu am solo pap mel ni des na beneen box waaw waaw aywa ñu dem Balla Moussa nga xamante ni moom it vraiment bi ñu fi ñëw euh, jeune mal la woon mais daa mel ni jamono jii ñuy wax ak yéen léegi mal la moom nga ñuy njëkk a wan doon ñëwoon femelle yi mu mel ni pap bi ñu fiy ñëw boobu euh, mbote la woon waaw instant bii nag kenn sañatu ko tudde mbote. <laughs> waaw waaw léegi moom instant moom espoir la nii quoi. Mhm. espoir la mi ngi toll ci 18 mois. Mhm. waaw xam nga rek moo tax euh, ñu di leen ko ñu ñu ñuy la ko pour wan la ko tamit comme liggéey bi fu mu toll. Mhm, pour pour tamit ñu xam ne vraiment liggéey bi tamit mi ngi mi ngi mi ngi kii quoi mi ngi pour ñu mun ko évaluer. ñu xam tamit parce que tamit euh, ñu koy ñu ñu pour ñu koy xool tamit xam nga. ñoom dañuy dañuy mën def seen jàngatu bopp quoi. waaw kii moom mooy mooy mooy Balla Moussa. Balla Moussa ma tuddee ko sama sama benn waay bu baax. Mhm. baax na nekk sama rak ah. Mhm. nekk euh, vraiment tamit euh, koo xam ne si bergerie bi. Mhm. vraiment am na fi cër am na fi wàll. waaw ndax euh, li muy agissé fii bari na trop. waaw waaw moom nekk tamit waaw waaw nekk tamit doomu teraanga quoi. léegi da commencé yeewu ci xar yi. Eh. parce que gis nga turandoo. toujours ah. day jël <laughs> <laughs> naa foofu nga koy dàq. waaw waaw ba woon bi daa ma jógee. waaw na ma nee na ma nee na ma ba ma ko tuddee ma tudd ko ba ko tuddee mais mënuma maa ñooñu duñ yam quoi. Eh, macha gis naa ne gis naa ne li mu waxoon. yàlla bu euh, ñu yàlla barkeel na ko quoi macha ah, allah mën nga ñu fàttali fu mu bokk. waaw moom euh, doomu euh, El Hadj moo ko Elhadj Uguye moo ko jur. ok d'accord waaw Uguye Uguye doomu <coughs> doomu Saalum Saalum yaayam moom laa wax mooy Teranga mooy famille bi loolu présenté léegi. moom moo moog jeune bi ñoo bokk ñoo bokk yaay. ñoo bokk yaay bi moo topp si moom. moo topp si moo topp si mooy mooy mooy mooy ñoom ñaar ñu bokk yaay. mais différence de parents euh, euh, papa yi lañ am. quoi voilà waaw waaw. kii euh, waaw Elhadj Uguye Elhadj mooy papa. voilà mu nekk lu rafet mu nekk lu am solo. mi hmm. ngi nii mbokk yi hmm. Balla Moussa macha allah nekk euh, espoir boo xamante ni euh, bu ñu am espoir la. Mm. voilà mu mel ni moom ànd naa ak yeneen i femelle. Mm, waaw waaw ñoo ko boole lool wala yeneen tëng ci biir. tëng yi waaw tëng yi voilà macha allah ñu dem xool tëng yi ah. mm. mel ni kon euh, Pape tëng yi ñoom ñoo fi nekk pour mën a war a relever ñu war a nekk relève bi. waaw ah, ñu ñoo war a relever défi bi nga xamante ne yow moom nga engagé wu ne di nga ko di nga ko def ci élevage. ñu nekk tëng yi rafet macha allah. effectivement li nga Euh, noonu la demee euh, ñi ñi ngay gis relève lañ quoi. Mm-hmm. waaw mais foog ma présenter la parce que kii. bii nii. bu noir bi doomu info la. ok waaw doomu info mi mâle bi moo ko jur quoi. Mhm. Mhm. moom mi ngi noonu ah. kan moo ci yaayam ci femelle moom géej moo ko jur. ok doomu géej euh, kii doomu doomu notaire la quoi. notaire bu weex bi. waaw waaw allah tëng bi rafet na lool macha allah. waaw waaw moom moom tamit euh, euh, benn benn femelle bi ñu Binta moo ko jur. ok waaw Binta moo ko jur quoi bunte léegi dama ko jox sama copain Maguette Ndiaye. Maguette Ndiaye ok ko jox quoi pour mu comme tamit mu liggéey si quoi. ok voilà voilà kii tamit bii tamit doomu doomu tëng mbootamu ndaw bi doomu doomu bete bete bee nekk si biir. mooy bete bete sans euh, Cheikh Diop fixé bi. Mm-hmm. Euh, moom ñun moom moo ko jur. ak benn ak doomu jibi bi fi nekkoon. Ah? ay ñoom ñoo ko jur daal ñoom tamit ñoom ñu nekk ay relève quoi macha allah voilà ñoom moom da a téye juste pour comme mu nekk liggéey bu rafet euh, mu mel ni lii mooy li nga ñu waroon présenté tey voilà waaw waaw liggéey bi rafet na te gis nañ vraiment teg nga ko ci yoon mm-hmm, mm-hmm. Euh, seetlu bi sànq jàngat bu am solo nga def mooy bu ñuy wuti maal mm-hmm. pour mu changer gétti la leçon du jour kon li muy nekk mooy. Mhm. boo wutijee maal ba pare. Mhm. la ngay def mooy dangay ngay téye ca doom ya. Mhm. nday yi comme ay champion la ñu ñoom ñëpp da nga leen di jox ñeneen. ñu wut ci yeneen champion. ak yeneen champion. mu nekk lu am solo. lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj xanaa di kontaan rek euh, euh, si vraiment si euh, ñëwaat bi ngeen ñëw fii. ñu xam ni yéen suñuy partenaire ngeen. parce que tamit lii li koy waral mooy ñu xam ni ñun ñu ngi ànd liggéey. parce fekkoon ànd liggéey. xam nga ni du mën a nekk. dëgg la kon liggéey bi ensemble la. Mhm. ñun munuñu dem mënuñu dem sans yéen. Mhm. mënuñu dem sans yéen parce que léegi jot amatul. xam mhm, vraiment nit ñi bañuñu dem fenn mais jot lañ amatul. tey ci ñu bëri tamit ci Ladoum TV bi dañu am temps pour mën a pour mën a ñëw visiter sa visiter sa sa léegi mun nit mun na visiter sa sa élevage yëpp te du ñëw sa kër. dëgg la nit mun na sa si kaw nag nga nga nga nga dem ci euh, fi xam ne si boo demee di nga am visibilité. fu mel ne laa TV vraiment. Euh, euh, man jaaroon naa fa. dëgg yàlla. mais rëccu ma ma fa jaaraat. te tey jii ah. damaa gën a kontaanaat parce que vraiment bi ma fa jaaree am naa ci benn visibilité boo xam si vraiment. Mhm. ma di ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. Mhm, mhm. ba léegi boo fa demoon xool li mu am ci ay vues nga xam ni euh, nekkul nekkul ci ci ci ci ci émission bi. en tout cas bi nga fi jaaree ba ñu fi bàyyee femelle yi fekkaatuñ leen fi. <laughs> aywa mu nekk lu am solo. <laughs> waaw waaw waaw waaw <laughs> loolu dama ci doon bañ a egg rek léegi nag ñaara bi tamit mooy. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee léegi encore encore une maa ngi jox gars yi rendez-vous. Mm-hmm. foire ba. foire bokk sàmm. waaw incha allah. Mm-hmm. Euh, date bi kañ la. Euh, la euh, la la quatorze. ba la vingt. ba la vingt waaw. ba la vingt quoi quatorze la xar yi dugg. mu nekk ci esplanade stade. bu géejawaay bi bu géejawaay bi. moom mooy dem Diop. waaw Demba Diop wala. Amadou Bari Amadou Bari. waaw Amadou Bari aywa Bari xam naa Ndakaaru de fii laa juddoo Amadou Bari damaa juum rek. aywa mbokk yi kon loolu moom mooy li leen indi Euh, ci seen émission fi ma jaar Pape Mboup la ñu seet si woon borom bergerie Seydi Djamil euh, di leen jox rendez-vous numéro bi balaa rendez-vous bi. 77. 512. 512 38 76. 512 38 76. waaw moom mooy numéro téléphone wu. ak euh, ak 78. 395. 19 69. aywa ñaari numéro yaa ngi noonu bergerie Seydi Djamil. waaw Pape moom moo fi nekk ak ay soxnaam. ak ay frères am di liggéey liggéey bu am solo ci élevage mbokk yi ak yi ñu leen di jox rendez-vous ci beneen numéro ak euh, beneen invité à très bientôt incha allah. chez le vétérinaire dina ànd ak saytu wergu yaram santé animal dina saytu sama la nu mi dunde fii ci Ladoum TV TV la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar jaar